délégation wu Dangote te ñu gën ci ràññee madame Mbaye Moustapha Diop ak euh, suñu jarbaat bii di euh, Khady mbay ak ñi ñu àndal yëpp bu ñu leen tuddee rek tudd nañu ñu des yëpp di nuyu délégué de quartier yi fi teew yëpp te joge biir Kër Moussa di nuyu aussi parents d'élèves yi mais di nuyu

mais pour que population bi mon ci gis sen bop li ci population bi gisee sen bop nak moy ay réalisation yo xamantene dangot Dangote gunge nañu bi mën ko def ci commune bi mu mën jariñ ñëpp mais salaire kenn la mën jariñ ak wa kërëm mais mënul motale ñëpp bok na ci lolu tay bo démé zone nord amon nañu problème xalé yi di dox 7 kilomètres di dem di jangi. lañu ñu jëkk a def ak ñoom mooy tabax fa benn CM boo xam ne di ngeen ko gis sax logo bi ci biir karne yi tabax fi benn CM boo xam ne mën na permetre vraiment xale ya nga xam ne ñoo nekkoon ci gox boobu seen njàng di yàqu ren ñu mën a yem foofu depuis année passée yaakaar naa kenn waxagul loolu loolu vraiment def nañu ko ak Dangote ak yeneen action yoo xam ne similaire tey dëkk bu mel ne biir kër Moussa gi ñu nekk

tey kay yi ñuy joxe foo demee ba kàcc li fu mënu mënti doon dëkk bu mu mënu doon ci biir commune bi di nga fi fekk kay yi donc moom parents d'élèves yépp ñoom ñoo koy jariñoo bourse d'excellence yi ñuy wax bi ñu koy tànn mais am nañu ay jafe-jafe ci commission bi de maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm commission éducation parce que dañu war a tànn élèves yi nga xamante ne ci matière scientifique yi ñoo gën a ràññeeku te loolu dalilu am solo même bu ngeen setlo ren ou bien daw bi ñuy def euh, euh ñu ko tuddee ci sax prix distribution de prix comment bi président don jiite voilà concours général il a beaucoup insisté sur les matières scientifiques donc ñom bu ñëwé di jappalé ci côté bobu ñu tan kenn ko xamante ci suñu lycée le génne vraiment ci matières scientifiques koku je pense que Euh, jàjja la aussi pour élèves yi nga xamante ne ñoo nekk ci ginnaaw pour ñu gën a góorgóorlu te loolu vraiment gis nañu ne euh, xëy na société yàgg na fi nekk mais Dangote la ñu gis vraiment ci côté boobu mu di ci liggéey bu am solo te bu ñu toogoon fii tey di énumérer action yi nga xam ne dàngoot mu ngi koy def jëme ko ci biir population bi mën nañu fi nekk tey bi suba te duñu fi jóge mais dafa laaj aussi loolu ñoom bu ñu teewee population bi teew ñu xam ne lañ doon xeex ca dàngo démb ak bëkk démb njariñ yi rotombo yi mu ngi nii di ñëw ci biir population bi ñu di ko gisal seen bopp donc jaadu na nit ki bu la defalee Teranga, bu teewee teraanga boobu nga wax ko parce que lu ñuy nëbb nekk fi dàngo ba mu ñu commencé dimbali bi tey euh, dëkk yi nga xam ne ñoo gën a parce que damay leen koy waxaat toujours je demande une discrimination positive dëkk yi nga xam ne ñoo gën a ndimbal li lay ëpp ci ñoom mais communes yi nga xam ne ñoo ñoo euh, comment dirais ñoo wër Dangote aussi na ci commune u Kër Moussa ëpp doole parce que ñun la ñu impacté pourquoi am na ñu dëkk ñu jële fi dëkk bi doxal ko amul benn commune boo xam ne doxal nañu fa dëkk donc bon lu ñuy séddale man jàpp naa ne commune Kër Moussa war nañ ko ci mën a bàyyeel loo xamante ne aussi mooy xaw a ëpp doole tuuti bien que nag Euh, fexé nañu ba commune yi des yépp xëj nañu ci parce que bu leen fàttali yéen itam yéen ñi ñun ñi dëkk Kër Moussa Dangote nekkul Kër Moussa rek dafa impacté Morolan impacté Pout impacté aussi Diass peut-être bu ma waxee Diass dina xaw a jaaxal ñu bari mais ñi nga xam ne dañuy liggéey ci affaire carrière waru leen jaaxal parce que am na ay matières yoo xam ne fa lañ koy jëlee ñun amuñu ko foofa lañ koy jëlee di ko indi fii donc bon ñoom ci la ñu bokk moo tax action yi ñuy def yépp vraiment gis naa ne ñenti commune yëpp kenn ku ci nekk yaa ngi ciy gis sa bopp mais nag rawatina nag commune donc bon ñu ngi leen di di leen gërëm moment yi ñu ku ci nit ci santé ku ci jàppale commune ci wàllu éducation gis nañu ne vraiment li nga def ñëw ci waxtu yi nga xam ci parce que éducation compétence transférée de même que euh, santé loolu ñun la te xëy na suñu doole motewu ko mais bu ñu ñëwee orienté ñu ne ñu orienté leen ne def leen li ngeen ñuy jox fii kooku mënuñu lu dul sant leen gërëm leen te façon boobu nag la ñuy liggéeyee ak waa Dangote nekkul ne ñoom ñooy ñëw ne ñu ay millions ngi nii nangam lañu koy def ñun ñooy seet fan lañ ko war a def lan mooy suñu soxla ñu orienté ko foofa looloo taxoon première bi comme ni ma ko waxee léegi seet nañ ne wàllu njàng mi am na gox bu mu sooxee Nous orienté ko fa ñu tabaxal leen CM bu mucc ayib nous xam ñepp gis nañu ko bi ñu aussi ci walu santé bi ñu indi ko Kër ëlëk dina ñu ko de suite ainsi de au finish commune bi yépp le dango touché na leen donc bon ñu ngi di remercier ci li ci euh, chaque instant day muy l'emploi des jeunes en tout cas comme ni ko exiger mais nag ñu diñ ci gestu pour que jeunes yi aussi euh, ñu di ci am ay xëy lu mu néew-néew ñu mën ko teg ci seen loxo loolu aussi euh, yéen a ngi ciy def dara waaye itam bu ñu sañoon ñu gën ko yokk voilà pour na euh, pour bañ leen retenir de trop parce que ñu ngi jóge Pout war dem be Diass jóge fa dem ba Morolan te programme bi dafa chargé tey la suba ginnaaw suba mais xale yi ñu ngi ciy liggéey ak ñoom vraiment de passage ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax li ci ëpp bi ñu koy liggéey fekk neewuma fi mais cette année, avons fait ce ko ci ni aussi nous ngi leen di sant bu au nom de toute la commune de Kermoussa. merci beaucoup